وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokki auditeur yi radio benno fm 106 point 0 ci lëkkaloo goo xam ne seen radio benno fm 106 point 0 daf koo lëkkaloog groupe whatsapp bi tudd alxaq sabit mooy amal ak yéen mission bu tudd at tafaqahu fi ddin bi maanaa dégg diine atafaquhu fi diin dégg diine émission la boo xam ne seen rajo Benno FM 106 ci lëkkaloogum lëkkaloog alxaq groupe whatsapp alxaqu saabit dana leen amal dana amal ak émission boobu ci ajjuma ju jot ci waxtu wi ngeen di ànd sen mbokkum taaluɓe mafari ndiay pari ndiay muy andandoog yen ci émission boo wurdi leen ci leeralal lu aju ci wàllu diine nu ñuy jaamoo sun boroom rawatina li muy gën a leeral ci biir émission bi mooy lu aju ci wàllu fiq laabak la ca aju danañ ko leeral julleeg la ca aju koor ak la ci aju aj Makka ak la ci aju azaka ak la ci aju takk sëy ak la ci aju ak miraas ak la ci aju ak yeneen xeeti jëflante yi ci wàllu alal mooy jaay ak jënd ak la aju su ko defee kon loolu mooy émission bu attafaqahu fi diin te seen rajo benn FM 106 point di ko amal ak yéen ci lëkkaloogum lëkkaloog seen groupe whatsapp bi ñuy tuddee alxaqu saabit ngeen di ci ànd ak Mafari Ndiaye Pari Ndiaye àjjuma ju jot ci waxtu wi. kon mbokk jullit yi kon xam ngeen ne sunu émission bee jàll. Euh, waxtaan nañu ak yeen lu aju ci wàllu xam-xamu fiq ak ay cosaanam ak la ko indi bañ ca jógee andil nañoo nag yéen ak yéen lu aju ci wàllu laab ci ndox su ko defee kon loolu lu jar xel la ndax jullit bi lu aju ci wàllu diineem daf ko war a fonk lool te xam ko te yittewoo ko tey dox lay ca lay defar diineem ndax julit bi wërta jaamu boroomam tabaraka wa taala ci ak làmbatu rekk ak ci yaakaar na ak ci ak defe naa lépp lu mu jaamoo boroomam tabaraka wa dafa am cëslaay dafa war a am cëslaay lu wér lum ko war a wéer loo xam ne du doon benn làmbatu ba tax na moo tax Seexul Xadim radiyallahu taala anhu di wax ci téereem bi ñuy al aljawharun nafis neena bokk na ci li nga xam ne dafa xaraam ci mukallaf nga xam ne xaraam gi amul benn sikk sàkk xaraam na mutlaqan mooy mukallaf di jëf mbir walla muy jaamu ak jaamu te jaamu googe muy jaamu walla mbir moomee muy def xamut lan mooy àtteb sharia ca mbir moomee kon daal nit ki cheikhul xadim radiallahu taala lim bëgg a foofu mooy dafa bëgg ci jullit bi bala mooy jëf jenn jëf rekk ak jëf jum man di doon ci jëfi sharia yi xatta ba ci xeeti almuamalat yi nga xam ne dafay dox ci diggante jullit ak moroomum jullitam wala muy dox ci diggante nit ak moroomum nitam sax bi sifa amma mukallaf dafa war a xam lan la ci atteb sharia wax ci mbir moomee war naa xam ba xam mbir mi sharia daf wala mbir mi sharia daf ko xaraamal wala mbir mi sharia daf ko sib wala lu ci aju ci mbir ma daal war naa xam lan mooy atteb sharia ci mbir mooma mu doog a song def ko mu ne mbir nag nga di ko xam lay atteb sharia loolu tegtaliwut ne danga war a jàng ba peeg téere yépp rek ba jeexal téere yépp loolu sun boroom mayu ko ñépp jàng ba géeju ci téere yu baree bari wala masala yépp nga jàng ba géeju ca ba xam ko yàlla sunu borom tabaraka wa taala baaxewu ko ñépp waaye am na ñum ko baaxe ñoo xam ne masala yépp géeju nañ ca mu ne yow mi nga xam ne tollagoo foofa nag mbir mooy bëgg a def rek lu ne këtt ne jonn demal laaji boroom xam-xam ba nga xam ne xam na lay mbir mooma nga laaj ko ca lan la ca sharia wax lam la ca wax nag nga daal di koy topp su ko defee nga laaj borom xam-xam lan la sharia wax ci mbir mi mbir sàngam man kat damay bëgg a xaji màkka wala damay bëgg a lepp xaalis wala damay bëgg jaay wala damay bëgg jënd wala damay bëgg def nangam dal? yow xamoo lan la ci atteb sharia wax ci mbir mooma waaye nag man ngaa dem laaji boroom xam-xam boo xam ne moo la gën a kawe moo la féete kaw nga dem laaji ko ca lan la sharia wax ci mbir mooma nga daal di koy topp cheikh alxadim radiallahu taala anhu dellu tegaat ca janeen wax ju yéeme ju daw yaram ju raglu itam mu ne nit ki nag bu fekkee dane moom dafa bëgg a topp sun borom tabaraka wa taala moom sax day danañ ko gis ma ngay góor góorlu ci julli yi ma ngay góor góorlu ci oor gi ma ngay góor góorlu ci aj màkk ma ngay góor góorlu ci joxe alalam xeeti jaamu yàlla yépp ma ngi cay góor góorlu waaye moom nag lii muy jaamoo sun boroom tabaraka wa taala xàmmeewu ko moom daal gis na nit ñiy def muy def rekk waaye moom lii muy def xamut lan la ca àttab sharia wax xamut lan la ca sharia rëdd xamut ndax lii sharia def ko aaye wala aayewu ko waa moom daal gis na awaam yi di ko def rek mu ne da koy def mu ne képp koo xam ne dangaa jóg nag ngir jaamu sun borom tabaraka wa taala te jaamu googee ngay jaamoo sa borom tabaraka wa taala tegoo ko ci xam-xam bu leer naññ waaye danga koo ci fekke naa ak defe naa ak def defle rek mu ne kooka am xelam matut kooka am xelam matut ah, yeewuwut itam ndax buur bi nga xam ne tabaraka wa moo la bind ne la jaamu ma te nii laa bëgg nga jaamoo ma ni te nim bëgg nga jaamoo ko ko jaare na ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bi fi yonent yi ko boroom xam-xam yi leeral nañ wax yonente bi bam gën a leer yow nag defoo loolu lépp toppatoowoo ko waaye yaa ngi gis nit ñiy def ngay def rek mu ne kooko daal ku dof la ku yéewu wut la daal ndax nit ab kilifa bu la digalee mbir war ngaa xam lim la digal lan la nga dog koo def mu dellu teg ca nag ne li ma lay wax ne la nit ki jëpp jëf jumi jëf war naa xam lan mooy àttab sharia ca jëf ja waaye itam nit ki bu fekkee dafa jékki-jékki rek tëb def di maanaam jóg di jaamu sun borom tabaraka wa taala te jaamu gii muy jaamu tegu ko ci xam-xam waaye daf koo teg ci rafetum xelam rek ak njortam mu ne noonu kooka am xelam matut mu ne waaye itam nag ki nga xam ne dafa jóg nag ne dafay jàng dafa jóg ngir bëgg am xam-xam wala dafa jóg ngir laaj te moom nag bi muy jàng demul ci boroom xam-xam boo xam ne bu am xam-xam dëgg la ba maîtriser li muy wax wala ba muy laaj ci masala laajul koo xam ne boroom xam-xam la bu dëggu bu am xam-xam mu ne kooke day du am lu leer mukk ci walu diinem bi maana ci sikk sàkka lay nekk ndax lii muy jaamew sun borom tabaraka wa taala du ko du ko comprendre bi maana du ko du ko du ko xam du dugg ci boppam moo tax mu nekk koo xam ne ku bari sikk sàkka lay doon mu nekk koo xam ne dafay cigiñ cagañ bi maana lenn lu nekk rek du ci am yaqin ci fekkee naa ak lay lay lay lay demee moo tax cheikhul xadim radiallahu taala anhu ne kon nag ngallawaay na ngeen di farlu ci sàkku xam-xam na ngeen farlu ci xam seen diine na ngeen farlu ci dégg seen diine na ngeen farlu ci xam ni ngeen di jaamoo seen borom tabaraka wa taala waaye nag bul yam ca xam ga rek bul yam ca dégg diine ga rek waaye nang ca boole nag di ko jëfe bul yam ci jàng xam-xam rek bu ca yam bul yam ci itam gëstu sa diine dong ba xam ko bu ca yam waaye nanga nga cay boole nag di topp sa boroom tabaraka wa taala ndax loola mooy njariñ la ndax waxoon na la ca benn téeréem bu ñuy tudde maxaalixu niiraan mu ne bu fekkee ne nit ki dafa jàng te jëfut wala mu jëf te tegu ko ci xam-xam yooyu yépp nekkul nga neel nit ki dafa war a boole ñaar yépp dafa war a boole xam ak jëf xam ak jëf nag neena na mi ngi mel ne garab ak meññetam waaw garab ak meññetam mu ne nit ki nag bu fekkee sàggan na moom bokkul ca kuréel bale bokkul ca kuréel bale mooy moom sax jàng li mi baax baax baax bokkul ca jàng jaamu yàlla la mi baax baax baax bokkul ca ña jaamu yàlla moom daal boolewut ñaar yi jàngut jaamuwut yàlla mu ne kooku day saa bu ko dee nuyoo saa bu demee ci bàmmeel dana xam ne suñu borom tabaraka wa taala foluwut ah su ko defee kon lii mooy cheikhul xadim radiallahu taala anhu lii la dénk julit ñi waaye itam lii la dénk ah, ba tey cheikhul xadim radiallahu taala anhu ci soññi goo xam ne mi ngi koy soññi jullit ñi ak soññi goo xam ne mi ngi koy soññi taalibe yi ngir ñu jàng seen diine ngir ñu dégg seen diine mu andil ñu waxi imaamul awfi radiallahu taala anhu ci koo xam ne moom daal ba julli jotee julli na julli gu mat sëkk rokon ya mat na dara mànkiwu ca sujjóot ya mat na taxawaay yaak njàng maak lépp julli gu mat sëkk la julli dara luy ayibal julli ga nekku ca wala sax moom bu doon jàpp njàpp mu mat sëkk la jàpp waxuma la njàppum ñaar ñaar waaye njàppum ñett ñett sax la jàpp cër bu ne raxas na ko ñett yoon njàpp mu sell njàpp mu yiw wala sax moom bu doon sangu farata la ni mu sangoo farata nu aw yoon la ra manki wu ca koy defee la ko defee amut lenn lu ca manki amut lenn luñ cay xebat waaye moom nag li ciy ñuul mooy moom bim jullee ba noppi wala mu jàpp ba noppi wala mu sangu farata ba noppi moom lii mu def lépp ba noppee nag xàmmeewut ca lan moo cay farata xàmmeewut lan moo cay sunna xàmmeewut lan lañ ca sopp moom daal julli gi gis na nit ñi julli tisbaar ñeenti rakka dañ koy yalu moom itam noonu la koy defee rek takkusaan kadalik timis dana ko julli ñett raka jàng ko ca kaw waaye nag moom julli gii mu julli ba sëlmal xamut lan moo ci farata xamut ndax faatixa ji farata la wala sunna la xamut saar wi farata la wala sunna la xamut farata la wala sunna la lépp lu aju julli gi xamul bi wala sujjóot yépp mënu koo xàmmee njàpp ma itam noonu la def xamul galax ndiku sunna la wala farata la masa bopp xamewut sunna la wala farata la cangaay la yépp mu def noona bim jaamoo maanaam bim defee jaamu gi ba noppi daal moom mënulu koo teqale ne la lii farata la lii sunna la seexul xadim radiallahu taala anhu ne la imaamu aw fii nee na kooka day jëfam jë deesu ko nangu jëfam ja deesu ko nangu bi maana jëf jim jëf te xàmmeewu ca farata yaak sunna ya mu jooju desu ko nangu te ngan ngant tege itam desul nangu ngantam bi maana ngantul dama xamut woon ngantul dama jàngut woon mu ne deesu ko nangu lu tax mooy lim la waxoon ci ginnaaw mooy ku xamut na nga laaj ku xamut na laaj ndax nit ki mbirum àddunaam nim koy yitteele mbirum àddunaam nim koy yitteele ni muy fàggoo alal ni muy jaaye ni muy jënde ni muy baye ak la ci aju lépp dana ko jéem a xam xam gu leer nañ naññi nga xam ne kenn du ko ci mën a nax baaboog bañ ko cay nax dafa nekk nax goo xam ne euh, euh, gu tombe la waaye moom xeeti matuwaayam yépp jël na ko ba kenn du ko mën a nax ni ko nga xam ne noonu lay def ci wàllu ëddanaam ci wàllu jaay wàllu jënd wàllu bay ak yeneen yi deme noonu mbirum diineem noonu la ko war a yitteele mu xam ko xam gu leer nañ bañ koo bàyyee ñenn rek yaakaar ne diine moom dafa am ñu ko war a féete woo rek man moom li ma war a féetewoo mooy sa wàllu àdduna nga war koo féetewoo nag te doyloo woo ci kenn loolu ak nax sa bopp la waaw ak nax sa bopp la nit ki ni la mbirum diine ni la mbirum àdduna yi téele nga xam ne portable bii nga yor xam nga niñ ciy dugale crédit xam nga ni ñuy xoole crédit bi xam nga ni ngay mën a génnee numéro yi nga bëgg a woote xam nga ni nga mën a liire tur yi nga ci bind ni kii turu diw la lii mooy numéroom xam ne boo ko woo jot boîte vocal ak yeneen ak yeneen nanga ko mën a xame bam leer la bu dee ci téléphone yu xarala yi ni nga mën a xàmmee ci whatsapp yi ak ya ci mën a xàmmee nooy duggee ci internet beeg yeneen yi ci aju yépp coono boobu nga jox yittey àdduna ji coono bu ko ëpp moom nga war a jox yittey diine boko joxe yitte diine rek danga daadi dégg sa diine dara dula ci ump baabook lu bari dang ko ci xam ci lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg a def rek ci sa mbirum diine dana leer nañ ci sa bopp waaye nag bu fekkee ne diine moom dafa am ñoo ko féeteel rek doy nañ la ca bi maanaa ba ma waxee doy nañ la ca mooy dafa war a am ñoo xam ne ñoo war a jàng am xam-xam yow moom daal sa mbirum àdduna na nga ko yitteel te ñoom ñooñee doyloo leen ci seen mbirum àdduna bi maanaa kenn toogut lank bañ a liggéey bañ a fàggu loo dépense boo yóbbu sa kër bu ñu waxee nga ne sëñ bi laa doyloo a ah, gisaguma benn taalibe bu ko def ku xëy rek yaa ngi kër këri ci sa bopp ci loo mën a yóbbu sa kër ah, yaa ngi kër këri loo yóbbu sa kër naka noonu yi nga war di kër-këree loo yóbbu ci sa kër noonu itam nga war a kër-këree si mbirum diine te cheikhul xadim radiallahu taala anhu li ñu yittewoo ci mbirum diine lépp bindal nañu ko bam leer naññ ci suñ bopp bam leer naññ ci suñ bopp su ko defee itam dangay ngay gis ci ndaw ñi ndaw ñoo xam ne liñ toll mooy jàng seen diine lañ toll liñ toll mooy gëstu seen mbirum diine ci lañ toll waaye defuñ loola benn jàng nañ alxuraan ba noppi moo xam mokkal nañ ko wala mokkaluñ ko waaye buñ ca jógee ab laxdari yu bu àgg sax duñ ko jàng wala ab tasawudu zixaar bu àgg sax duñ ko jàng falañ naan kupp seen mbirum xam-xam boobee nga xam ne moo waroon ci ñoom ngir ñu jàng seen diine waaye dugg ci mbirum àdduna nag waaw ah, dugg ci mbirum àdduna am na ñeneen ñoo xam ne sax euh, ñoom gaa dugguñ ci mbirum àdduna waaye bañ jàngee alxuraan ba noppi dañoo waroon a yittewoo ba tey ñoom itam seen mbirum diine mooy téere yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ciy jàngale mbirum jaamu sun borom tabaraka wa taala euh, waaye ñoom bañ noppee jubluwuñ ca xam téere yooye waaye ñekk ci durus ay xasida rek am na solo lool jàngi xasida baax na lool ngëneelam yiwam kenn mënu koo takk kenn mënu koo takk waaye lenn lu nekk nag dafa war a am lu ko jiitu am la ca tege sareet du jiitu aw fas waaw sareet du jiitu aw fas su ko defee nit ki war naa jàng diineem ba dégg diineem laneen lum cay teg nag doog ko caa teg waaw lii la sëriñ bi jàngale lii la sëriñ bi bëgg ndax boo demee ci ay téeréem loola nga dégg mu di ko ca soññee bokk na ci wax jii ma la wax léegi nii Seexul Xadim radiyallahu taala ne waxuma la ne lu aju ci julli rek nit ku bu ko defee te xàmmewu ca farata ak sunne wala jàpp wala euh, sangu farata waaye bépp jëf ju man di doon rek doonte jël sa alal di ko joxe ci yoonu yàlla ak yeneen yi ca aju bu fekkee ne nit ki mi ngi koy def te wut lan moo cay farataak sunna mu ne jëfam joojee haba an mansuuran lay doon bi maanaa pënd buñ tasaare la rek bu ngelaw li dalee dootoo gis dara mu ne nag Seexul Xadim radiallahu taala anhu mu ne wax ji nga xam ne imaamu Awf yi wax na ko nga xam ne moom lañ koy askane la mu ne wax ju tiitlu la de wax ju raglu la de ci képp koo xam ne danga ngaa féeteerlu rek topp sa mbirum àdduna mii nga xam ne àdduna moom du jag mukk te damay faral di wax naan nit ki man ngeen a départandoo yow nga jóge fi jaar yoonu xam-xam di ko sàkku ji moom mu jóge fi jaar yoonu àdduna di ko sàkku ji yow mii mën ngaa dem sàkku ji xam-xam ba ñëw ba giijal ci xam-xam soobu yoonu àdduna sàkku wàllu am amu àdduna nga dab ko moom mii nga xam ne dafa jógoon di sàkku ji àdduna kon nga xam ne ba tey kon gis nga foofu daan nga koy eh, ëpp maanaam daan nga koy ëpp avantage te loolu dañ koy gis waaqi yàlla bi maanaam lu lu lu luñ teg suñ bët la dangay ngay moroomantoon da ngay moroomandoo ak nit benn mën naa am yéen a bokk daara ju ngeen doon jànge yow ba nga fa jógee yaa nga topp téere yee jàng xam-xam moom ba mu fa jógee nag ba tasawudu si xaaram jeexee rek la topp marché bi diwut wut wàllu adduna mën naa am am na mën naa am amut yow nag yaa nga topp téere ya def nga ci ay at moo xam juróomi at juróom benn at juróom ñaari at nga wëlbatiku nag ba nga déparé jiwut wut ba nga dikkee romb nga di wut adduna ba nga dikkee romb nga ko fuuf waaw ba nga dikkee romb nga ko foofu lu tax mooy nit ki lim war a am ci wàllu wërsëg suñ borom tabaraka wa taala daf ko ko bindal bam daataan feeñ jamono moom waaw bam daataan judd suñ borom bindal na ko lan la war a am ci wàllu wërsëg kon kër kër yi ci wërsëg taxut am ko te yàlla bindalu ko bu yàlla bindalu la ko woon waaye ñàkk kër kër yi ci wërsëg itam teewul tekkiwul ne doo ko am bu fekkee yàlla bindal na la ko xadim radhiyallahu taala anhu ne wax ji dal nga xani ne awfi wax nako wax ju rag lula wax ju tit lula wax la itam ju ba ju jar baxel mune waye nak manes na ne nit ki kat bu jaamoo sun borom waye mu def ko ci anam gu sel, sel jele ko ci sel xam-xam bu sel dara wu ca mune man na am ñu nangul ko ko amna borom xam-xam yu wax lola waaye moom mu ne lim daane la ay waxam daal mu ne képp koo xam ne ah, yaa ngi jëf-jëf ah yaa ngi jëf-jëf te jëf jii ngay jëf wala mu ne xaraam na ci bépp mu kàllaf muy jëf-jëf jëf jum man di doon ludut ne jëf jii dafa xam lan la dafa war a xam lan la ca sun borom tabaraka wa taala at Seexul Xadim naa la lii man lii laa wax man dama ne xaraam na ci bépp mukallaf muy jëf jëf jumman di doon muy jëf jëf jumman di doon lu dul jëf joojee muy jëf daf kaa war a xam lan la ca sharia rëdd mu topp ko mu ni man daal lii laa wax su ko defee kon gis nga nit ki diineem waru koo sàggane ba xam diineem ndax du ay caaxaan moo tax suñu borom tabaraka wa taala bind la moom la la fi indee moo la fi bàyyi itam te itam moo lay wuutaleeg bahiima yi waaw moo la fi indi moom lañ la fi indee moo la fi bàyyi te moom la wu moo la wuutaleeg bahiima yi ndax bahiima kat moom bu xiifee lekk bu maree naan bu sonnee tëdd ah bu fekkee ne doomu aadama lii la topp maanaam nii la mel danaka mok bahima do ngayam xiif lek marnan sonu teud wa yitte wut mbirum dinem lol ak ciaganti gën ko reey ak ciaganti feti ko kaw so defé kon mbok julidi euh lolou dañ ko don tambalé rek ci wané go xamné dañoo bëgg wané né jang sa diiné ba xam ko njariñ loolu la lamboo loolu la Cheikhul Xadim wax loolu la boroom xam-xam yépp wax waaye nekk ñàkk jàng sa diine ak soofantal sa diine ak woyofal sa diine naka itam noo la ame inconvénient bi maanaam noonu la amee danger bu ci nekk su ko defee buñ del siwaatee nag ci sunu waxtaan nga xam ne maanaam buñ del siwaatee ci sunu waxtaanu tey nga xam ne mooy waxtaan wiñ doon waxtaane ak yéen ci émission bee paase waxoon nañu yéen lu aju ci wàllu ndox ndax nee nañu woon xeeti jaamu yàlla yi julli moo ci gën a foor te julli balaa baax laab dafay baax laab nag ñaar la dafa am laab goo xam ne moom la ñu tudde laabu xadas ak laab goo xam ne moom la ñu tudde laabu xabas laabu xadas mooy nit kii moom am njàppam dafa toj mu war a jàppiwaat am njàppam dafa toj mu war a jàppiwaat wala moom sax tiim mooy farataam mu war a tiim kon nit ki bu jàppee ba noppi laab na ci xadas walla bu fekkee tiima ko war mu tiim ba noppi laab na ci xadas loolu mooy laabuk xadas ñaareelu laab gi nag moom ni ñu tuddee laabu xabas laabu xabas mooy yow jàpp nga wala bu fekkee tiima la war tiim nga bu fekkee sangu faratara rek itam sangu nga kon laab nga ci xadas waaye nag sobe dalaa taq ci sa yére wala mu taq ci saw yaram kon bu boobaa yow laaboo ci xabas kon xabas daal mooy jëmmi sobe kon nit ki ndeke mën naa amum njàpp mën a julli mën naa amum njàpp te du mën a julli mooy lan mooy jàpp na njàpp mu baax waaye yaramam wii dafa am sobe su ci taq moo tax mënta julli sobe soos yi nga xam ne dafa takk ci yaram te mënta julli nag danañ ci ñëw ci kanam tuuti bu fekkee waxtu wi xaj na ci bu fekkee xajut ci waxtu itam beneen émission buñ dajeeg yéen danañ ko ca leeral nit ki mën naa am laabug xadas ni ma ko waxe woon léegi waaye nag mënta julli mooy sobe dafa taq ci ay yéreem wala mu taq ci aw yaramam bu ñu waxee taq ci ay yéreem nag mooy lépp loo xam ne ba ngay julli mi ngi ànd ak yow rek donte dafa nekk mbaxana moo sol wala mu nekk verre yoo takk xatta ba ci portable bu nekk ci sa poos wala montre boo takk wala xatta ba ci jaaro boo takk yooyu yépp benn waru ci ànd sobe lépp dafa war a te benn ci itam wërta nekk sobe waaw montar bi wërta nekk sobe ak yeneen ak yeneen yi ci aju buñ ci àggee danañ ko leeral kon laabu xabas mooy loolu laab nag ñaari xeeti laab moo am waxoon naa ko léegi dafa am laab goo xam ne ndox lañ koy defee am laab goo xam ne suuf lañ koy defee dafa am laab goo xam ne ndox lañ koy defee am laab goo xam ne suuf lañ koy defee laab gi nga xam ne ndox lañ koy defee ñaari laab la dafa am lu ñuy tuddee laab gu mag ak li ñuy tuddee laab gu ndaw laab gu ndaw mooy lu mel ne jàpp laab gu mag mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee sangu farata moom la ñuy tuddee sangu farata laab gii nag lii la koy mën a defal mooy ndox mii nga xam ne jàngale woon nañ ko ci émission ba paase ne ñeenti xeeti ndox moo am ñeenti xeeti ndox yi ñaar yi baax na ñaar yi ci des benn bi baaxut tuur rekk waaye beneen bi ci des nag mënees na ko naan walla togg nee nañ la woon ñeenti xeeti ndox yooyu mooy ndox mi nga xam ne soppikuwul ci genn anam du ca cafka ga du ca melowa du ca xet ga ndox moomu nee nañ la woon laab na moo xam dafay nekk ndox mu bàyyi ko ci kaw asamaan mu di taw wala mu nekk ndox moo xam ne dafay balle ci suuf wala mu nekk ndoxum géej wala mu nekk ndoxum dex waaw bu fekkee ne ñetti anamam yi soppikuwul rek ndox mooma laab na ci anam yépp nak lekang ak naan ak sangok yépp rek ak japp ak yoy bob moy ben ndox bi ñaareelu ndox bi nak moy ndox bo xam ne dafa soppi ko way liko soppi dafa lab nak jàngalo nek lu mel sukar dem ca lu soow dem ca ak yenen ak yenen yu aju ci loolu lu mel li kon atem ndox mi kat moy ndox mi lab na ci lek ak naan way lawul ci sangok japp ak rafoot yu am sobe boobu mooy ñaareelu ndox mi ñetteelu ndox mi ne nañ la woon mooy ndox moo xam ne dafa soppiku waaye li ko soppi nag dafa nekk sobe ndox moo xam ne dafa soppiku waaye li ko soppi nag dafa nekk sobe lu mel ne am ngaanuwaay dem ca lu mel ne ay dem àll dem ca lu mel ne ay neefare dem ca lu mel ne deret dem ca lu mel ne sàngara dem ca yu demee noonu ndox mii day bu fekkee loolu dem na ca Ah, kon bu boobaa ba soppi couleur ba wala mu soppi cafka ga wala mu soppi melokaan wa ndox moomu bu boobaa tuur rek waaye bu fekkee ndox mu baree baree baree bari la tuuti sobe dem ca nag waaw ah, bu fekkee ndox mu baree baree bari la lu mel ne tuuti sobee dem ca rek kon bu boobaa sip nañ ku ko jëfandikoo bu fekkee am nga maneen ndox boo amul maneen ndox rek man nga ko jëfandikoo bu fekkee ne sobe sa ca dem soppiwut genn anam du cafka ga du melokaan wa du couleur ba ñentelu ndox mi moy ndox mo xamne nak dafa soppi ko waye liko soppi nak dafa dëkk ak mom lu melne ndox mo xamne ne béréb biñ gas bi mo am xorom wala béréb bi ten bi nek mo am couleur ba ndox mi xonk wala mu weex wala mu am ganen tiafka wala mu am xet wala yagay go xamne ndox mi daf ko yag motax tax mu soppiku waxon nañ la ne ndox mi bu fekkee ne soppiku na ci anam gi ndox moomu laab na mënees na koo jëfandikoo ci anam yépp lii leeraloon nañ ko ci émission bee passé moo tax ñu ko doon fàttaliwaat ngir mën a dugg nag ci beneen euh, point bi ci tegu mooy jëm yi nga xam ne laab nañ ñu jublu ci nag laabug mu ànd ak yow nga julliwaale ko waaye jublu ci laabug lekk. bu ko kon waxoon naa la laab ak niñ koy defee nee naa la woon laabu xadas am na laabu xabas am na laabu xabas nag mooy nit ki mën naa laab ci xadas waaye nag du tax mu mën a julli lu tax mooy dafa am lu taq ci moom loo xam ne laabut loolee daf koo war a dindi ba noppi su ko defee doog a mën a julli yooyu nag mën naa nekk ay jëmm waaye itam mën naa nekk ay matière yi nga xam ne bu àndeek yow nga mën koo julliwaale wala mënoo koo julliwaale su ko defee ñu njëkke jëmm yi nga xam ne bu ànd ak yow mën nga koo julliwaale mooy lépp loo xam ne mi ngi dund rek lépp loo xam ne mi ngi dund jamono ya muy dund laab na waaw jamono ya muy dund laab na masalan mbottak sa ndax ak gunóor ak jiit ak jaan ak Euh, lépp fasak mbaam ak mbaam xuux ak yu demee noonu jamono yi muy dund laab na waaye nag laab gi laab ndax dañ cee jublu laabug lekk wala laabug àndandoog yow nga julliwaale ko déedéet jublu ci laabug lekk bu nee la lépp luy dund laab na liñ ci jublu mooy laabug tey bu la taxoon wala laabug tey nga doon julli mu riisu la wala laabug tey nga doon julli mu war ci sa kaw loole la ci jublu kon bu boobaa du yàq sa julli su ko defee foofu question bi ngay laajaat maanaam déggit bi nga fi amaat kon ndeke kon lu medd rek laabatut ndeke kon lu medd rek laabatut medd moomu nag am na ay teqale yu ñu ci def mooy lépp loo xam ne dafa am deret juy daw bu xësee medd rek laabatut masalan bu ñu jëloon sandax dafa am deret tawi bu fekkoon ne dangaa su yor mbubb eh, sa ndax dee ci biir poos bi nekk ci boo ko julliwaalee amoo julli lu tax mooy dangaa julliwaale sobe waaye nag bu fekkoon lu mel ne lu amut derete ci nekk lu mel ne gunóor wala lu mel ne jiit yu deme noonu mu dee ci biir boo ko julliwaalee du tee am nga julli lu tax mooy dañ ko konte wut ne dafa laa maanaam dañ ko konte wut ne sobe la waaye dañoo konte ne laab na kon daal lépp luy dund ba muy dund rekk laab na noonu yi nga xam ne bi muy dund laab na naka noonu itam lépp lu bàyyikoo ci moom lu dut ay dem àll rek laab na masalan mbaam xuux xam nga ne laabut a lekk daganut a lekk waaye jamono yi muy dund laab na jamono yi muy dund laab na mooy bu fekkee tifliit yi dal na la taq ci say yére boo ko julliwaalee xitam du tee am nga julli ñandaxit yi wala ñaq woo xam ne dafa nekk ci deretam dafa nekk ci yaramam lu mel ne fas xam nga ne laabuta lekk ci mazhabul maliki mbaam laa laabuta lekk léegi bu fekkoon danga war mbaam nag mu ñaq te bim ñaqee nag dafa taq ci say yére moom ñaq bi ba tër bi nga xam ne boo xoolee yére bi danga xam ne yére bi kat am na lum taq du tee yére booba danga ko mën a julliwaale lu tax mooy donte ci mbaam la bàyyi ko de waaye nag ñaq wi dafa laab moo tax xam nga kon jubluwu ci laabug lekk waaye laabug mu àndaale yow euh, nga julli waale ko noonu yi nga waxe ñaq wi noonu ngay waxe rongoñ yi bàyyi ko ci moom noonu ngay waxe itam euh, ay balxamam balxam mooy ay xaaxtandikoom ak yu deme noonu nonu itam ngay waxé né ay neefareem labna na nak ci sartu mom nay jëfëndiko lu lab masalan fas nga wax euh masalan xarak bay, ak ganar ak yi deme non loolu ay nefarem na dafa dagana lek masalan ci teunk dal lépp lul dagana lekk ay neefaram laab na am soowam laab na waaye lu dëgganuta lekk nag foofu boroom xam-xam yi moom nee nañ moom dafay génn lu mel ne fas dëgganuta lekk ay neefaram laabut bu la taqee da koy dindi mbaam dëgganuta lekk ay neefaram mënoo si ko julliwaale am ngaan waayam mëneesu ko julliwaale naka noonu itam fas kadalik Euh, leer na ci sa bopp ne lépp luy dund rek liy bàyyikoo ci moom laab na ba des nag neefare yi neefare yi nag ci lañuy xool ba xam lii neefare yi bàyyikoo moom lu dagana lekk la wala dëgën lu ta wala am ngaanuwaayam ñu xool ba xam lii bàyyikoo ngaanuwaay mii ci lim bàyyikoo loola dagan naa lekk wala dëgënu ta lekk bu fekkee dagan naa lekk neefare ya ak ngaanuwaay ma laab na tey sawum xar bu la taqee mën nga koo julliwaale sawum nag bu lan nga koo julliwaale sawum bay kadalika ay neefare mi itam bu la taqee mën nga koo julliwaale léegi nag foofa la ñuy xool dem àll yi ci lan la bàyyikoo koo lim bàyyi koo naa lekk dem àll yi laab na lim bàyyikoo koo dëgganuta lekk dem àll yi laabut waaw su ko defee itam noonu la doom aadama itam waxoon na la ko moom itam ay loram ak ay ñand xiitam ak ay tiflitam yépp laab na jamono ya muy dund waaye bu xisee faatu nag bu la taqatee da nga koo war a dindi boo ko julliwaalee amoo julli su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen diglu seen rajo benno fm 106.0 kisiin ci seen émission bii nga xam ne moom la ñu tuddee dégg diine wala atafaquhu fi ngeen ci ànd seenu taalibe Mafari Njaay kon lu laaba ngi noonu naka noonu itam ni ma la ko waxee woon léegi euh, soow yi itam noonu lay mel ni nga waxee nefere yi soow yi noonu lay mel danga naan lépp loo xam ne aw yàppam dagan naa lekk am soowam bu la taqee dagan na lépp loo xam ne xaram naa lekk am soowam bula la taqee sobe la masalan nag dagan naa lekk am soowam dagan na bu la taqee na mën nga ko julliwaale fas xaraam naa lekk mbaam xuux xaraam naa lekk mbaam kërëg yu demee noonu yépp xaraam naa lekk am soowam itam xaraam na bu la taqee mënee su koo julliwaale waaw koo julliwaale kon bi ki nga xam ne dafa doon saafarawu masalan ci yu mel nii lu mel ne muy saafaraw ci ngaanuwaayum mbaam wala ngaanuwaayum fas wala soowu mbaam wala soowum fas bu ko taqalee ci yaramam ngir di ca saafara dara kooku bu fekkee nar naa julli daf koo war a raxas bam set wecc ci ndox mu mutlax bu fekkee taq na ci ay yéreem daf koo war a raxas ba set wecc ci ndox mu laab ndax lii sobe la bu ko julliwaalee amul julli mbokk julludi su ko defee kon seen émission dégg diine ngoon ngeen doon ci ànd ak seenu taalibe mafari njaay fii ci seen rajo benno fm 106 point 0 ci lëkkaloo goo xam ne da ko lëkkaloo groupe whatsapp bi ñu tudde alxaqu saabit fii la émission bi yam ak yéen ba baneen ajjuma incha allah buñ dikkaatee ñu sof fii ñu yam ba ila ma sha allah di wax ne lépp lo xamne jup na ci waxtaan rek mbaaxuk sun borom la ak tawfiqam ak ndimbalam lépp lo xamne deung na ci rek sun néew xam-xam la ak sun ñak fasaha ñi ngi ñaan sun borom mu nangul ñu ta nangul leen ci barkat cheikhul khadim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته